asalaamaaleykum waa Pikine xam ngeen ne Pikine dafa am solo ci sama xol ndaxte xam ngeen ne man doomu Pikine laa doomu banlieue laa doomu géejawaay laa kon na kenn du ma jàngal naqar ak jafe-jafe yi ngeen nekke tous les jours ndaxte dama koy dund ak yéen dama koy bokk ak yéen moo tax bu neexee yàlla le 24 mars 2024 bu ñu ma falee président de la république coono Pikine jeex na coono banlieue jeex na coono Sénégal jeex na. bi ma dalee campagne ba léegi fépp dem nee naa tey jii ci senegal am na loo xam ne nii mënul xaar xam nga li mënul xaar mooy lan mooy dund gi li mënul xaar mooy lan mooy dund gi na wàññeeku li mënul xaar mooy lan dund gi cher na li mënul xaar mooy lan mooy dund gi na wàññeeku. fu ma dem ci senegal dinaa ko fa wax parce que sénégalais yi loolu ngeen ba jëkk a sant buñ la joxee réew mi na nga wàññi dund gi Malick Gakou buñ la joxee réew mi na nga wàññi dund gi bu deexee yàlla buñ ma joxee réew mi dinaa wàññi dund gi wàññi dund gi wàññi dund gi dama bëggoon ngeen may ma rek ma wax ci wàllu sport sénégalais xam ngeen ne sport dañ ko def fowukaay te xam ngeen ne spoor satisfaction yi ëpp ci Sénégal sport moo ñu ko jox ba Coupe d'Afrique des Nations bi ñu gagné rek yàggul wane na ne sport sénégalais mën na am doole ci réew mi. loolu moo tax ma xaatim programme boo xam ne nii day jël sport def ko moteur de la croissance xam nga ba tey jii Sénégal sport bokkul ci création de richesse maanaam bu ñu jëlee suñu produit intérieur brut dafa mel ni sport bokku ci moo tax gouvernement yi depuis indépendance ñu def budget sport. gën ko néewal ba fi mu nekk nii gouvernement Macky Sall sport baa ngi représenté zéro virgule trente trois pour cent du budget national. loolu boo tax may jël engagement solennel ne bu ba yàlla defee président le vingt quatre mars deux mille vingt quatre dinaa yokk budget sport def ko deux pour cent du budget national. deux pour cent du budget national parce que loolu rek mooy tax ñu mën a jël sport bi teg ko comme facteur de contribution et moteur de la croissance économique et sociale xale yi Sénégal. ku leen defalee infrastructure ñu nekk ay sportif yoo xam ne nii war nañ mën a compétir ci Afrique ak ci àdduna bi ndaxte peuple sénégalais c'est un peuple athlétique un peuple d'intelligence te xale yi ku leen jox doole ñu yëkkati sport Sénégal ba sport mën a contribuer ci dundal njaboot gi suuxat njaboot gi ba gën a defar li nga xam ne mooy koomu Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen san